xamné ne mooy Ousmane Sonko ndax épreuve bi nga xamné nangu def en tant que leader politique je crois que c'est une première dans l'histoire politique du Sénégal kon ñi ñaan tamit yeneen leader yi nga xamné ñëmé nañ ko nañ ko ñëw def askan bi mëna tan c'est important euh, ay journalistes lañ c'est normal mais je crois que également

dañ koy tegaat kon Ousmane sas nga sa bopp tey ba nga ñëwee ci épreuve bii ñaari laaj lay laa laaj yu gàtt benn bi du man maa koy laaj parce que xam naa la bu baax a baax mais ñu bëree bëri bu ñuy wax Ousmane Sonko dañuy wax nit koo xam ne dafa yëg boppam foog na moom rek am xam Sénégal foog na mooy messi politique il est arrogant il est hautain dama koy dégg ñu koy wax du man maa lay weddali Aujourd'hui, tey am nga occasion bi nga wax est-ce que portrait boobu ñuy dressé ci yow nekk na wala dañu la umpale beneen bi ñuy ñëw ci système damay dégg ngay wax système mais man que gëm au-delà du système c'est le poste de président de la République qui pose problème moy bour di bumi moy tej di genné moy dogal di def lu ko neex moy l'hypertrophie du pouvoir présidentiel ñepp ko d'accord assise nationale yi bañ ci liggéey ñepp pas d'accord. ba fi place de l'Obélisque fi 2011 2012 né président bu fallu li nga wara a a def moy nangu bi ci njëkk sax moy démissionner sa parti ñaarel bi wàññi say pouvoir jagleel ko yeneen institution pour doxal mais président boo vous ne waxul duñu jëf dañuy wax ne kooku nguur gu yor Ablaye Vous boo wax mbopp day day day dof ba tax laaj est-ce que yow nekk nga ci disposition yoo vous ne bu sénégalais la doon président de la république men Ousmane Sonko samay pouvoir présidentiel dama koy wàññi lu bare bare bari jox yeneen institution yi te ci biir wàññi boobu am na yeneen ponk yoo xam ne bu ñu xuusee ci waxtaan bi mën naa la koo laaj parce que diggoon nañ ñu fii ne organe de contrôle yi dina dugg biir palais di càmbar alal ja nekk ca palais diggoon nañ ñu ko fi gisuñu ko diggoon nañ ñu ci fii tamit ne man su ma nekkee président dinaa nangu

nit ñu baax ñi ñuy tudd fii ñëpp muccuñu ci yàlla mi ñu bind ñun ñëpp mucc ci ndax di nit dina taxaw fii ni man gëwuma yàlla ku yaakaar na di ci mucc rek xaw moo la fi ñoo naan ku boot bukki voilà kay toog naan il est pédant ou soo ko ne woon est-ce que mus nga toog ak Ousmane Sonko mu ne la déedéet kon kooku li may wax du tibbee ko ci xam gu mu xam nit ki or jugement de valeur d'abord du lu bax mais su démé ba mënul ñàkk nang ko teg ci xam bu wóor boo xam nit ki jëflanteeg moom wax ak mom waye njort ba tax nga am stéréotype mo def ci nit defe na lolu bari na Sénégal mënuñu ci dara mais mënuñu ci top pour justifier parce que lu amul amut leen nek amna moy mooy suñu suñuy conviction mom dañ koy défendre su lol motax ñu il est arrogant defe naa commencé guñu sax arrogance suñuy conviction dañ koy défendre ben ñaarël bi jamarlo ak ay ay kat ay nit ñoo xamné ñi ngi rey askan bi ba doon bu yebee waxambaane ci doxin nga la parce que mu ñi ñu jàppaar lool ci boppam ñoo am yenn xeet yenn xeetu défin ak ay méthodes yoo xam ne léeg-léeg laaj yenn forme de réaction parce que tout en est violent ak forme violence bu mu jël parce que violence judiciaire violence la li ñu def jël administration euh, jël euh, judiciaire euh, pouvoir judiciaire wala jël la justice di ko utiliser di dal ci kaw ay nit yoo xam ay de famille lañ yoo xam ne ay nawle lañ c'est une violence inouïe jël administration di ko utiliser pour dal ci kaw ay nit koo amal affaire tey ku àndul ak yow nga envoyé ko contrôle fiscal bloqué ay comptes def c'est une violence inouïe utiliser les forces de l'ordre pour réprimer de manière aveugle des manifestations pacifiques, c'est une violence. ne nga pas naa keroog président Macky Sall ne kenn mësuma dégg ma wax lu ñaaw ci Ablaye Wade mais def lu ñaaw moo gën a garaaw wax lu ñaaw def def nit lu ñaaw moo a wax lu et donc face à ces gens là mënuñu fi nekk naan incha allah di yaru yarul déedéet dafay laaj la daal keroog assemblée nationale ba ma ne Moustapha Niass dinaa wax wala ñu tëj assemblée bi tey un député élu par le peuple nga am temps de parole euh, texte assemblée ne c'est entre cinq minutes et quinze minutes minimum cinq minutes et quinze minutes ñoom ñëw toog ne forcé dañ koy def trois minutes ba pare nga ñëw taxaw ñu ne la yow Ousmane Sonko trois minutes yi doo ko fi waxee ma dem toog sama euh, aj samay tànk loolu mooy indi yenn saa yi yenn truc yi mais du ci yar du ci jikko du ci dara euh, la ca des nag wax dëgg yàlla ñun waxuñu rek ñun rek a xam ñun dañ ne am na lu ñu xam te nous sommes prêts ñu ngi koy wax ak sénégalais mais mieux encore nous sommes prêts à en débattre ñaata yoon laa leen wax bi ma génnee sama téere bi ci pétrole bi coow li ne gàññ may leen ñëw leen ñu débat débat bu mel nii laa bëggoon may leen nag. Macky Sall bu ko neexee mu ñëw Aly Ngouille Ndiaye na ñëw ànd ak tout son cabinet Ba na ñëw man dinaa débat man man man mu ñëw xanaa kay loolu loolu loolu la ñuy wax ni dafa mel ni moom rek a xam xam nga ki wax moom rek a xam da wax te doo bëgg keneen wax mais koo xam ne non seulement da ngay wax waaye da nga ne je suis prêt confronter li may wax ak yéen bi ngeen di wax musu ñoo ñëw te duñu mus ñëw alors cette deuxième question sur les institutions sur le les pouvoirs du président de la République je crois que bind naa ci lu bëri dafa am ñaar am effectivement système bi pouvoir yu président de la République waaye dafa am loo du système bi mais ci la c'est comme la justice magistrat bu gëm yàlla ragal yàlla bu bëggee def liggéeyam dina ko def parce que lan moo ko ciy dal au pire des cas affectation la man quand j'étais inspecteur des impôts damay toog directeur woote ne dossier bi Sonko def ci lii ma ne ko def ma ko mu ne ma c'est l'autorité qui a dit ma ne ko si c'est le président nee ko Sonko nee na moo bañ def ma parce que su ma ko defoon ça aurait été une violation manifeste de la loi

dafa am loo xam ne boo nit rek mais day ak quoi qu'on dise c'est un brillant intellectuel moom au moins c'était un brillant intellectuel mais malgré tout gis nga biñ mbir mi dafa suux ak parce que mbir mi dafa bëri te benn nit que ko te nit ñi duñ la wax dëkk rek lañ lay wax président oui a ko yor wii nii la la la meuna sauver beaucoup na ci gannaaw yow nga jiital ci lepp loy def ragal yalla bala ngay xol nit ñi waye la meuna sauver moy des contre-pouvoirs solides la des États-Unis ba nga le président américain su une mesure le plus petit juge de Hawaï mun peut ko bloquer ko contre tel amendement de la constitution loolu mooy sauver un président de la république Moi, je ñu ne ci suñu proposition qu'il faut nous les pouvoirs du président de la République mais surtout il faut nous donner les contre-pouvoirs parce que le vrai problème c'est la Assemblée nationale il faut nous jouer son rôle de vote de la loi de toutes les lois loi de finances loi organique loi ordinaire loi de règlement mais il faut jouer son rôle de contrôle de l'action du gouvernement Il y scandale un fi am Si Si on au normal Assemblée nationale faut une commission d'enquête parlementaire li qui wax ci pétrole bi ci carburant frelaté bi ci scandale marché public yi À l'Assemblée ana assemblée nationale ña nga fee des di des di des di réclamer avantage assemblée nationale il faut ñu dooleel ko renforcer ses pouvoirs mais renforcer ses moyens de travail parce que dafa am une ñuy wax asymétrie soo jëlee loi de finances le gouvernement fait presque 10 mois pour préparer sa loi de finances avec toute l'administration yow député ñu andil la ko ne la tu as une semaine ou dix jours pour nga xol agriculture nga xol santé nga xol élevage nga xool ah éducation nationale ah lépp nga xol ko té yow amu sax ben assistant xam nga ben nit amul xam-xam yoyep mëno ko dajé dé té amoo sax ben assistant parlementaire moo je suis dañuy 10 millions de ñu jox ay député 10 millions yi emploi la créé jeunes ay en droit en économie wala branche des assistant parlementaire ont fait 200 000 ou 000 par mois année bi sax 10 millions ñun ñu député assistant parlementaire avez un député qui sax ni ñuy suñu loi de finance donc renforcer l'Assemblée, renforcer le pouvoir judiciaire. jëlee carrément carrément président de la République avec son ministre ils n'ont rien à faire là-bas du siéger le euh, conseil supérieur de la magistrature réformer le conseil supérieur de la magistrature une cour constitutionnelle au sommet de la primaire judiciaire mais qui joue son rôle renforcer magistrature nous son rôle Yoyo d'accord, il koy def nag pour régler le problème du pouvoir du président de la république mais président de la république au Sénégal il na def lu ko neex mandaam jeex mu avion dem dëkki France wala États-Unis bàyyi ñu ak de problème la la seule responsabilité du président de la république au Sénégal c'est euh, de nañ poursuivre pour haute trahison mais qui défaut lan mooy haute trahison il n'y y' a pas une définition jurisprudentielle une définition doctrinale une définition légale ce qui fait kenn est-ce que c'est la corruption est-ce que c'est des actes de prévarication est-ce que est-ce que kenn waxul lan la règle pour président république ñu engager son sa responsabilité pour votre trahison faut compliqué d'abord il faut une juridiction spéciale Il y assemblée xam nga a il y a des procédures des mécanismes il faut que trois cinquièmes des députés au moins viennent euh, initiative Non, nous avons proposition à côté de la responsabilité pénale éventuelle pour haute trahison nous devons proposer la responsabilité politique du président de la république dañ koy constitution moy tay da ngay gis ay réew yoo xam président bu defee population ñoo njëkk a génn réclamer sa démission loolu moo daloon présidente Brésil bi loolu moo daloon présidente Corée du Sud bi may dafa mel ay présidente rek lay dal d'ailleurs day euh, ñu peuple mooy njëkk a génn tey Macky Sall jaay na suñu pétrole te wax naa ko man signé na lu mu warul signé jël suñu pétrole jox ko saay-saay boobu ñuy wax Frank Timis loolu askan yëpp dañu waroon a jóg bu ko defee Sous responsabilité politique amoon assemblée nationale day obligé engager la responsabilité du président de la république pour éventuellement ñu wax est-ce que dañ koy destituer ou pas loolu ñun France bi ñuy roy parce que nous sommes tous dañ ko de ci France mais France depuis cette réforme de 2007 à côté de la haute trahison de la trahison nous avons la responsabilité politique du chef d'État Nous sommes presque la dernière démocratie pour nous. dugal il faut limiter les pouvoirs du président beaucoup de gens ci limités aussi. koy limiter aussi politique Comme Alé 8 milliards de jël ko jox les ko woteel la cour des comptes la contrôler conseil d'état du contrôler of do la woo la neexee de dugal ko ci pétrole taal ci la ñun compte que ci ram bu ko mu 40 millions qui nous ont ne jaaykatu gerte bi day liggéey ba ngoon sonn dem dugg ci boutique 18 ñu dajale loolu yóbbu ko 8 milliards de Macky Sall koy donc fonds politique ko parce que fonds politique c'est des fonds de corruption politique moom la tous les soutiens yi ngeen di ba tax soo tuddee Macky Sall di dafa ku ci la fonds politique lay parce que nous avons ci budget de l'État soo ko rek ñu néla la waaw mais c'est pas réaliste motax ci livre dama né fonds politique dañ koy remplacer ak fonds secret ñaar yooyu bokkul fonds secret moy am rew dafa am ay dépenses yo xamné ne c'est des dépenses sensibles kenn mënu ko bind ci budget bo xamné ne koy def ci site ministère de l'intérieur ministère des finances du moins fonds d'espionnage mënoo ko bind mënoo ne Sénégal day espionner rew sangam. 500 millions il faut prévoir Il dafa laaj des fonds secrets mais fonds secrets d'abord dañ koy voter à l'Assemblée Vous nous parlez. c'est des fonds que nous avons contrôlés. koy une commission mixte Nous avons deux députés de l'opposition deux députés de la majorité un présidé par un magistrat de la Cour des comptes qui prête serment Nous vérifier la régularité des dépenses qui ont été faites sur ces fonds politiques. Mais dans une démocratie, dans une démocratie, nous avons benn de citoyen bi citoyens xam ne dañ koy jox kenn mu koy fooy nous mu ko neexee loolu du élément pour limiter les pouvoirs du président de la république C'est le pouvoir de nomination Le président de la république parce que est conscient c'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires encadré nous ko nous ko neex lay nous jël ngeen baal ci bi rapport épinglé leen cour des comptes IGE mu mu jël ko moom teg ci tànkam woo nit ko ba mu ñëw am nga ay milliards demal nga ma jox ko responsabilité loolu moo administration tout le monde est démoralisé tout le monde donc pouvoir nomination boobu duñ ko ko mais dañ koy encadrer Moi, tous les hauts emplois à un certain niveau directeur directeur généraux d'abord nous nekk ñu ñu lu ñuy jox ay nit la politique de manière flagrante un directeur général sous melee ni nous war a mel di liggéey ni mu war amul jotu nekk ci terrain bi organiser ay meeting ak des politique deuxième bi war nañu ba poste yooyu yëpp dañuy def appel à candidature soo demee Togo bi Togo Côte d'Ivoire léegi pour nekk directeur général impôt domaine wala douane dañuy def appel à candidature daal di génne des critères xool sa njub xool sa cursus sa ancienneté xool sa compétence ñu def une sélection boo xam ne comité bi koy def ay nit yu autonome lañu

waaye am na yeneen wax naa ko ci décentralisation bi parce que suñu collectivités locales yi xam nga ni ay sous-préfecture ou exécutif rek lañu il nous faut de véritables collectivités locales bu dee dugg nañ ci waxtaan bi dinaa ci xuus parce que defe naa euh, euh, tontu naa lu bëri ci li nga jot a wax. dama d'accord ak Pape Alé Niang euh, xëy na nit ki boo ko gisee da ngay bon li ma jàpp boobu ku bëri kerse la du la xool ci bët day sëgg mais. bind mi dafa dafa dafa dafa dëgër wax ci dafa dëgër da ngay utiliser mooy dëgër waaw mooy dëgër mooy yoo xamante ni mën naa gën a rafet non euh, xam nga politique politique du du li nga doon li leen nit ñi jàppe la donc euh, jàpp naa ni euh, baax na nga def effort

parce que dafa amone lima lima lima lima lima intéressé woon moy xawma la ki nu muy xalaatee kii lan moy lan moy nek ci bop bi te bo lire nit rek ku bind rek trahir nga sa bop donc lire na livre ba mu jeex tak tak tak tak tak amna lima ci neex amna lo xamanteni euh ni neexuma tamit amna lo xamanteni japp na ni war nañ ko améliorer.

avant ñu au pouvoir nous am qui ñuy mais la gestion du pouvoir il faut même am lu ci nekk j'ai choisi de croire que tous les hommes politiques sont bons c'est un choix li gën bon ci homme politique mooy xool li neex nit un homme politique warul def li neex nit ñi parce que nit c'est le choix dañu am les choix du moment Nous avons suba def arrestation de Karim Wad, une demande sociale les mêmes personnes qui ñëwaat ne ah comme gis leen dara bàyyi état wara def lu neex mais da nga il faut pas faire ce que les gens veulent mais ce qui est bien pour le peuple ce qui est bien pour le peuple dama ni moment pour def peuple ko ci confort te jaarul ci moment d'inconfort nit defal lu baax te sax dañ lay di nga ci di pour nga am loo xamante ne xëy na ëllëg di nga mën a am fierté si bopp te aw mën na table nii euh, sénégalais nga te si bind mi dama cee gis euh, yenn saa da ngay mel ni kuy waxee sax xol bu jeex ci situation dëkk bi et je le partage totalement avec toi avec vous excusez-moi mais c'est l'élection du premier gouverneur de nos ressources pétrolières bis bu ñuy juumee ci choix boobu jàpp naa ni dinañ amel ak suñu njaboot donc jàpp naa ni euh, ñun ñëpp loolu dañoo yitteel ba exercice bi nga def maa ngi ñaan yeneen homme politique yëpp def benn déclaration d'intention am fit tamit indi lu ñu bind nit ñi càmbar ko alors donc rafetlu na lépp waaye nak, amna na loo xamante ni euh, bëgg naa ñu waxtaan ci euh, da nga ne réew mi xam nga ni am chômage

Nous avons retenu que nos hommes politiques font ce que le pouvoir veut ce que le peuple veut mais ne font pas ce qui est bon d'accord parce que nos hommes politiques n'ont jamais fait ce que le peuple veut justement nos hommes politiques font ce que leurs commanditaires veulent ñi les intérêts et les lobbies et ils ont tooyal permettent qui milliards Ne mou sou nyon amsousi ki popol li. Sou nyon defon li popol li beg. Ojo di Senegal we sou na fi. Paske damen ferej di wak ni Senegal jafe nan defar. Senegal e yi, jafe ou nyon, meti ou nyon. Abla e Bwinyo an 2000, teyrek amnen komokoron fateli. Il me di, men diap nan ni Abla e Bwinyo 2000, sou ne won bo yip arete ren nan wetan gen dem bayi sa, bon metou l nen jem. Mais ce potentiel-là, qu'est-ce qu'on en a fait 12 ans plus tard, nous sommes li nos hommes politiques, et je reviens toujours à, l'analyse systémique, parce que le système de l'informatique, nous c'est des faces différentes. Nous euh, la nous mën jox politique mais un homme politique bu c'est le peuple rien que le peuple bopam dara te amul bu am influence te ci suba dama dama repérage dem di un peu de sport quelqu'un garde sa voiture m'interpelle ma taxaw expliquer vraiment ab kilifa suivre ngay def vraiment nous sommes avec toi mais benn affaire rek la lay ñaan mu ne ma mu ne ma moytul France bul di wax lu compromettre intérêt France il était sincère dans la démarche et je comprends fi muy waxee ma ne ko mais doyen justement c'est ça notre problème su dee ñun terroriser nañu ba ñemeetuñu wax lan mooy suñu intérêt réew parce que jàpp nañu ku ko def tu deviens la cible de Massamba ou de Madame Ba ça veut dire que nous n'avons pas le réew l'homme politique français il défend les intérêts de la France Il critique l'Amérique, l'Amérique le génocide arménien etc. etc. mais l'homme politique sénégalais n'a pas le droit de dire que je ne suis pas d'accord avec le franc CFA je ne suis pas d'accord avec l'économie de jëlee suñu parce qu'après, tu deviens une cible te ñu bëri gëm nañ ni fii du sénégalais yi fal waaye eh, eh, eh, seen lobby laa ñoom ñooy fal foofu nag nous ne serons pas parmi cette catégorie d'hommes politiques notre génération dafa war a jël responsabilité nous ne sommes pas contre la France mais nous sommes pour le Sénégal xam nga li olof naan sama bopp la gënal tekkiwul ni dama laa bañ te développement yu ma après bi may conclure ci français fa bi j'ai dit dinaa dégg ñu bëri ne je suis un anti-français je ne suis pas anti-français je n'ai rien contre la France ni contre son peuple moi wax ni nag France bu amee déglu tuuti dina xam ni suñu genre un liñ koy wax mooy intérêt parce que système bi nii de domination mënul continuer ce qu'on comprendrait, le rapport du mot am Afrique surtout Afrique occidentale dina continuer Ce qu'on comprendre ni Kagame de ak y dina a une génération qui arrivera et qui va rompre brutalement avec la France. j'ai bien aimé terme bi en juin 2012 bokk na ci le premier gouverneur de nos ressources pétrolières le premier gouverneur de nos ressources pétrolières a commencé mais dafa lacc dafa wanteer pétrole bi moo tax ma ne li ma bind ci de bi mooy Je suis sénégalais yi wóolo ba fal ma du doon liggéey bu simple nag mais contrat pétrolier gazier minier dañ koy renégocier dañ koy renégocier parce que c'est défavorable au Sénégal te mënuñu toog ba ñu dul ci lii du ma a yaakaaruñu ci lii waaye nekk ci ndóol ba yàlla tàccu la nga am ay leader yu ñàkk bëgg Sénégal dem di def di business ci suñu pétrole ak suñu gaz au profit d'autres intérêts loolu ñun mënuñu ko nangu soo gisee nag élection 2019 bi nar a métti pourquoi mu doon tension lii rek la ñu dénk la teg charte réew mi tek code pétrolier tek code minier ne la nii nga war jaar nga tek ko fi jaar ni ba xam ni nag tey su ma ñàkkee pouvoir njaaxum am nga né sama bakkan la ci def lool rek motax tax nga gis nii yépp obsession deuxième mandat pétrole bi ci la bok motax ni nga ko mettre au cœur des enjeux d'accord na ci alors def na des développements sur la fiscalité mais man ko dougal ci partie bi mu wax ci financement yow économiste nga xam nga ni le premier problème de tout état et singulièrement suñu réew yu ndol yi moy naka la ñuy dajalee financer nos politiques publiques Nous loolu lañ dul waxtané mukk dans ce pays kenn du ci waxtané premier levier de financement politique publique c'est la fiscalité ressource souveraine souveraines, xamné mom ngay dajalé te lañ cay am mënoo ko ci am ci leneen pétrole bi ñuy wax ba preuve du contraire duñ ci am la ñuy am ci fiscalité pour le moment te nañ ci am fiscalité boole ci kon levier boobu ñun dañ cee yàgg a liggéey pas seulement en tant que technicien mais sous l'angle politique politique fiscale ci politique fiscale laa fi wax waxuma fi technique fiscale de taux multiplié par base ak nangam na kooku bàyyi naa kook ñoom Basirou diomaay ak ñoom Birame soulay

fois, yu ñu war a fiscaliser amu ci sax 7000 yu ñuy fiscaliser benn potentiel la boo xam Pour mi ngi le secteur informel nous avons la le fay le secteur informel gérons une fraude fiscale nous lañ fa mën a jëlee bëri na. mooy ci ni dérogation pour les multinationales les avantages sociaux yi ci xaar en terme de création emploi yeneen yeneen musuñu koo gis il faut les supprimer tey exonération yi ñu dans le secteur minier dans le secteur pétrolier ak yeneen ak yeneen code dérogatoire yu ñu defoon yëpp nga dañuy jël sur 40 ans sur 20 ans ñu may nit ay avantages fiscaux muy def ay milliards Sénégal di ko Sénégal te fayu fi fukki dërëm il faut ñu dindi quoi tous les gens qui viennent ne dañuy investir Vous paré balaa ñuy ñëw dañ naan jox ma des avantages fiscaux te ñemewuñ ko def fu ñu dëkk ñemewuñ ko def Turquie ñemewuñ ko def France ñemewuñ ko def Chine yooyu la né suñ ci agiré mën nañu am lu ëpp 600 milliards par année lool dama ko duggal ci cadre financement bi mais amul ben moment bo xamné néna dañuy créer de nouveaux impôts encore que c'est pas exclusif mën nañ ko def su ko situation bi laajee kon corrélation bi ñu bëggoon def nag entre outil fiscal impôt bi ñu jël ko def ko benn outil boo xam dafa mel ni pour nga attirer des investissements directs étrangers il faut nga jox nit ñi ay avantages impôt xam naa ni ngeen jégal ñu nag ndax parti bi mooy parti bi gën a naqari ci Sénégalais yi ndax parti technique la parti économie la mais gis nañ ni soo xoolee dañuy wax déterminant à l' investissement lii tax investisseur bi ñëw def xaalisam l'impôt septième wala huitième position la ci nekk wax nga léegi ndox mi wax nga courant bi wax nga tali yi wax nga coût de la main d'œuvre etc., etc. et cetera donc nañu nañu bàyyi di di di di di maye li nga xam ne moo waroon a tey financer suñu développement noonu laa ko waxee ci yeneen euh, élément de financement yi mu wax mooy tey suñu wax naa suñu renégocier woon nos contrats chaque année mun nañu andi 800 milliards chaque année, nous avons 800 milliards. Nous renégocions nos contrats. 800 milliards pour gérer 600 milliards pour gérer 400 milliards pour gérer Mais lolo, dans ce problème. Dans ce là, nous dans un cycle d'endettement chronique. Vous voyez ce qu'il y a aujourd'hui Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que nous sommes venus à l'autre qui finance l'économie. C'est ce qu'il y a, c'est le bord. Le BCAO, Andesek un Dr. Abdurrahman Diouf, qui est venu à l'autre, benn article bu am am solo wax tey politique endettement boobu ñu commencé woon moom démontré ni léegi waa jaa ngi viré dem ci ultralibéralisme defe na mais politique sociale boobu mu jiitaloon ba tax mu dem di lekk ñu accompagner ko ci ak des méthodes de refinancement BCEAO ngi demee noonu ba mu egg fii mu egg tey alors que amoon nañu yeneen levier souverain ñoo xam ne duñu ñu dikkee fukki dërëm yoo xam mënoon nañ ci am lu ëpp lu ñu dem bi démb bi may lire sa article pour ñëw ci monnaie bi fi ma d'accordul ak yow c'est des conclusions mais d'accord nañu man ñoom ji le professeur est d'accord que franc CFA baaxul li tax ma wax ko mooy article mi ngi ko tuddee non le Sénégal doit rester dans la zone CFA le président a malheureusement raison malheureusement je ne tax pas jàpp ni moom ci boppam d'accord ni CFA femmes. baaxul ne xam pas mais un élément bi nga génnee c'est que ñun au Sénégal dafa am benn déficit ci besoin en réserve en devise Nous ñun un peu utiliser le compte d'opération mais justement est-ce que nous Français nous moo ñu non? est-ce que c'est pas parce que avons une monnaie pour le peu qu'on exporte gérer ko ressources naturelles on transforme rien on exporte des produits bruts Nous ci un prix bu baax parce que suñu monnaie compétitive ci exporte. est-ce que nous, nous une faiblesse en devise est-ce que nous ñu que respecté parce que dans le cadre du franc CFA principe transférabilité libre transférabilité mais accompagné une politique de contrôle d'échange mais il est établi que c'est pas respecté les banques ne respectent pas ratio 5 des dépôts à vue Nous dañuy préférer bàyyi c'est une devise nos autorités euh, euh, de la BCEAO ne font rien pour l'enlever à la limite ils semblent impuissants bu ko faits ñu am devise gu bëree bëri boo xam ne du dellu ci Sénégal muy faussé carrément même jusqu'à nos comptes publics sont faussés sans compter l'équipe qui mën a am ci fraude fiscale ak yeneen ak yeneen boo jëlee tey li ñuy perte ñun Afrique ak Sénégal ci les flux financiers illicites defe naa rapport à Mbeki bi wane na ni chaque année dañuy perte 25 50 millions de dollars 25 000 milliards de francs CFA Vous ñuy perte flux illicites je crois que c'est là le travail il faut que nous nous ko il que que nous nous mettions les moyens de financer notre économie mais francs CFA nous sommes pas d'accord nañ avantage ça nous donne une stabilité mais qui finance la stabilité c'est nous-mêmes Ce n'est pas gratuit nous réserve nous fay c'est pourquoi c'est pour nous financer cette stabilité là bis nous avons amatul réserve ñu dévaluer dévaluons. bis bu 20 euh, de de de le seuil des 20 nous les c'est nous-mêmes qui finançons ça Nous, ça nous permet de maîtriser l'inflation Nous, avons dugg ci débat est-ce que une politique bi nous am sur cette obsession inflationniste ou non inflationniste Bata, nous comprimons comprimer économie est-ce que politique nous nous là Il y a même des contradictions parce que vous réew boo yow inflation c'est maîtrisé tu fais des des taux de croissance extrêmement importants et tu as besoin de t'endetter de manière inconsidérée Il y a des incohérences donc nous, disons nous ne wax pas ñun financer suñu bop. mais nous gagnons les inconvénients du franc CFA parce que le france ko franc CFA c'est le trésor français qui peut garantir c'est le citoyen français le contribuable français Moi, en France du suis a seetaan ba moom mu war a financer fukki dërëm France may ñu abaluñu la ci des yépp Il day a un si je argument mooy suñuy élite politique ils sont incompétents et irresponsables pour gérer une monnaie C'est la monnaie l'inflation va grimper Si nous la monnaie. comme mobiliser recette fiscale ils vont utiliser la planche à billets pour combler ces ces trucs là mais président ak suñuy gouvernement est-ce que nous avons un nangu lool tey Afrique 54 états Il y en a 15 qui ont le franc CFA plus peut-être euh, euh, Cap-Vert qui a le même régime avec avec le Portugal mais les autres pays 16 sur 54 ils ont leur monnaie ngi dans le monde a des pays qui ont leur monnaie donc man pas d'accord que Man Ousmane Sonko, si je devais diriger le pays, je serais un irresponsable. Si nous avons politique éducation mun nga def sa politique santé mun nga def sa politique politique waaye koppar moom duñ la ko jox ndax wóorul pas. alors et comme nous voulons que la monnaie redevienne un vrai instrument de politique économique il faut que, ni soit dans le cadre de la CEDEAO mais on a li tax mu compliqué ku liir lépp it na ko gis soit dans le cadre de lieu nous ñu dàq France jéggal leen ma kàddu gi mais bàyyi cadre kàddu gu dëgër gi bon ñu génne France ci conseil d'administration bi administrer nous-mêmes notre monnaie mais loolu on a li tax dina jafe tant qu'on aura des présidents yo xamné ne France la ñu dina jafé soit ñun Sénégal tay ji ñu mëna def suñu monnaie

Euh, le doyen Ahmed Diop, de Sénanoun, Ahmed Diop, ancien de la BIAO, ancien du FMI, Banque mondiale, etc. dama dem dama ko woo ma dem parce que bu mu les anti français CFA d'accord ñu woon ma ne la laa soxla dañu dem ma éprouver li ma bind ba conclure dama ko malgré position yi nga jël est-ce que jàpp nga ni tey jii Sénégal mun na yor ma ne boppam boobu bind naa ba pare de mais dama bëggoon xool responsable mu xool-xool ba ne ma gëm naa ne mën ne suñu gérer correctement suñu ressources naturelles yi gérer correctement les autres facteurs de mobilisation de ressources am un cadrage budgétaire bu jaar yoon mën am suñu monnaie te dinañ ci à 200%. cent pour cent léegi wax nga maintenant bi may Cheikh Sylla nga nga jéggal ma ci volet économique bi te dafa Wanga nga me ma proposé c'était un modèle que proposer. proposé ça tourne autour de la nécessaire industrialisation am ou bu amul industrie mënul développer c'est tout à fait c'est-à-dire dafa am que nous ne xel sax mënu ko nga jël euh, matière première yi lan exportation on suñ la les exportations se sont bien comportées trimestre bi y y a virgule lan lañ lay les poissons frais non transformés les produits horticoles non transformés exemple bi nga joxe léegi dañuy jël jox ab mu Arabie Saoudite nga xamné dara du fa meññ ñu défar ñom parce que def nañ seen industrie défar seen canette ñëwaat fi diñu ko jaay lan la exporter de l'or brut te devises du duñ ko Sénégal de moy wax bi par exemple fo les fu melni Mali y a que 10%, 5% des devises la rapatrier Mali te des devises les 2,5% directement trésor français Mali 2,5% moko tant que des industries de transformation ba lañ fiy for ci mango lañ fay buddi liñ fiy euh, deqi ci gerte ak yeneen ak yeneen ñu mun ko transformer fii j'ai fait de long développement ci gerte gi wax ni gerte gi lépp mën nga ko transformer diwlinu gerte gi ma wax ko fi tey mooy bokk na ci diwlin yi gën ci àdduna su dee togg bu yàgg ngay def li ñuy wax le long cuisson ñaari diwlin la ci lañ ci homologuer gerte gi ci la bokk soo demee Amérique tey am na ay restaurant yoo xam ne boo fay dugg ci niñ ma ko expliquer dañ la naan pour les fritures il faut de l'huile d'arachide ñun suñu togg yi nga xam ne ceebu jën rossi et cetera et cetera di diwlinu gerte gi moo baax ci ñun parce que suñu togg dafa yàgg biñ ko fi nee ñukk dem andi ay huile de table ci la ñu commencé am problème mu santé yëpp ngeen gis diwlin gerte googu gerte gi ñuy bay fi man su ma toogee bañ ne chinois yi lañ koy jaay wala ma dégg ren président Macky Sall naan maa ngi ñaan Turquie ñu ñëw jënd gerte gi damay am gàcce booba jamono Sonacos yàq nañ ko privatiser ko ci caaxaan jox ko Abbas Jaber ci 53 milliards lañ ko ne woon def ko defu ko ñu ñëwaat reprendre ko delloo ko 53 milliards te def fa deureum ci investissement ñu yàq ko yàqet ba sone ko say mi ngi nii damay def 1 million de tonnes d'arachide te so bolé Copéol Sonacos kenen ak keneen mënuñu jënd 400 000 tonnes kon bobu bok na par exemple fi nga xamné dañu wara am des unités de transformation warul yam ci Sonacos rek man ce deuxième article bi amna na d'accord ak yow motax mané sama modèle agriculture familiale la moi ça mon option mon modèle industriel c'est les PME PMI a encore une fois une soo mais Allemagne c'est la première économie d'Europe mais il y fekk ay multimilliards de grands industriels mais c'est un modèle qui est un dañ PME PMI PME PMI yooyu modèle industriel y avons déjà commencé mais dañ leen appuyer par l'encadrement la formation et le financement de def développement ont opté pour des filières. Tay, si nous sommes qui nous avons qui pêche, nous de 0 à 12 miles, nous avons réservé sur nos pêches traditionnelles. Nous avons pêché, nous avons débarqué. Nous avons tout le littoral sénégalais, nous avons des usines de transformation. Nous avons des sardines, des sardines, nous avons des brut. mais nous avons transformé, nous avons des pots, nous avons des pots, andi devise bu dul jeex loolu jafewut kon filière yooyu laa gis ni parce que da ngay de toute façon mënoo def industrie lu dul si base bi nga am maintenant y a des industries lourdes yoo xam ne lu ñuy liggéey la yàlla may nañu tey pétrole il nous faut aller vers les industries pétrochimiques il faut ñu dem ci gisuma vision bu ñu développer fii pour commencer à former des milliers de jeunes dans ces métiers il y a 500 métiers qui tournent autour du pétrole gouvernement bi là, la comme proposition on va former 200 jeunes comme pompistes, comme chefs de station ak comme là. Non programme de formation donc avons déjà anticipé Il y a des milliers de jeunes qui vont former ci métier Métiers métier trader métier euh, ingénieur géologue métier euh, ingénieur raffinerie ainsi de suite Nous avons ci formes jeunes donc là on a une marge aussi dem progressivement vers ce type d'industrie parce que si jëlee lu le du pétrole il n'y a que 45 de la matière mooy pétrole ak gasoil tout le reste c'est les produits délivrés caoutchouc nangam nangam ne nga donc il y a des créneaux qui sont nous mën ko cibler avec un agenda du les la ñuy def tey mais am na loo xam ne mën nañ ko commencer tey lañ fiy produire déjà ñu am ko dañu fexe ba commencer ko transformer ici dem vers une un modèle de substitution des importations Donc, ndànk balaa ngay importer ceeb bu dul jeex dañu fexe ba ceeb bi ñuy bay fii ñu améliorer qualité bi te di ko lekk pomme de terre bi noonu leneen ak leneen dem progressivement di monter en gamme donc loolu la ñu proposer qui livre mais sont c'était les nak mi ngi tourner autour de l'industrialisation programme industriel le bëgg ci avec des PMI PME mais aller progressivement vers deux ou trois grands champions dans certains secteurs comme la pétrochimie comme en ak yeneen nga am ci deux ou trois grands champions yo xamné dinañ propulser l'économie je crois que la ci dess monsieur Diagne man gëw la réalité du pouvoir gëw ko xam nga luma ma gëm lii laa waxanteeg askan loolu lay def man loolu laa gëm xam nga suñu commencé utal nos hommes politiques des prétextes rek tout est justifiable après lu waay def rek ne c'est la réalité du pouvoir

Lima wax ni réforme Lima dañuy renégocier les contrats on veut sortir du franc CFA on veut reprendre notre économie en main def préférence nationale ba entrepreneur am priorité ci keneen ak yeneen ak yeneen gis nga rek la tax nga réussir ko sa à tout moment bis avec ton propre donc loolu laa gëm li gëm mooy gor boo toogee ci kanamu nit ñi ne leen def xam nga am na yoo xam ne ça n'a rien à ak la réalité du pouvoir su ngeen ma falee d'ina, andi mandat bi cinq ans ñu fal la nga maintenir mandat bi sept ans c'est pas la réalité du pouvoir gore di rek la du leneen mais suñu duggee ci logique yooyu rek dañuy dugg di justifier di justifier loo wax ñu ne la saaway réalité du pouvoir de fekk du dara ñett ñeenti nit ñoo ñëw gis la def seen lobbying wala àndaale seen ma rek nga ne la réalité du pouvoir ça n'a rien à voir avec la réalité du pouvoir. dafa méngoo suuf si ñu am ci Casamance ndax fii suuf si dafa xaw a bane bokkul ak sol joor yi nga xam ne moom la ñu am moo tax suñu amuloon lii nga xam ne ci xam-xam dëgg dëgg dëgg la ko. suñu magu joolaa yi tëggee moo suñu am loon lii su doon illeer la ñu illeer mënul bay fi Casamance gis nga ñax bi nu mel fii soo fi wandoon illeer defe naa boo defee nii balaa nga yeggali sax mu damm mais bii soo xoolee poids bi rek war na mat 5 kilos wala lu ko ëpp donc caaxaanteewu ko nuñ ko bindee mu gudd am weñ bi bu ñëw a ñëw ci kanam pour mun a xotti suuf si la ak tibb suuf ñu def fii ci gannaaw lu ko dëgëral pour nga mun a euh, gën a mun a xar suuf si euh, boo demee nag ki zone yu mel nii kaasa ñoom seen kajaar bi la ko gën a tàcc day tàcc gën a gàtt mbayum joolaa nag ñaari yoon la da njëkk a jaar bu njëkk bi pour sëral suuf si la ñaareel yoon bi nag da ngay jaaraat nga jaaroon pour mun a léegi defar sion yi li ñuy wax sion yi ingéniosité li ñuy wax ingéniosité dëkk ak xam-xam moo mënoon a tax suñu mag ñi fii Casamance ñu imaginer lu mel ni soo demoon ci ñeneen ñi xam mooy balante yi ñoom seen di ko fekk donc tam wala nga fekk fa uuf wala daba ñoom ñëpp soo seetee peut-être forme bay wute bële da ngay gën a sëgg waaye di nga fekk léeg ñu niroo lii parce que lii soo ko yorul mënoo béy Casamance. man damaa sant yàlla ndax damaa am chance. lii moom laa def sama ndaw yëpp ma amoon sama maam bi nga xam ne moo jur sama papa ñu koy Fatou Ndiaye koo jàmm di jigéen joo xam ne mooy li ma gën a marqué ci àdduna. nga daf ñoo formé en tant que nit waaye en tant que homme euh, ñu jàng lan mooy àdduna lan mooy coono lan mooy liggéey ñàkk jëriñu ndax looy lekk yaa koy bayal sa bopp kon lii euh, pour wax rek li tax suñu model agricole bi ñu proposé Sénégalais yi dañoo xam bay yàgg koo liggéey suñuy maam jàmbaar la woon ndax lii xam-xam dëgg moo mënoon imaginer lii soo ko amul doo bay Casamance su ko fi andi woon ileer balaa ngay jam sax mu damm ndax suuf si ni mu mel ak gis ngeen gàncax gi ñu mel mais dafa jot ñu moderniser suñu agricole moo tax suñu modèle boobu ñu proposé muy modèle agriculture familiale ci ay ferme familiale yoo xam ne dañ koy diversifier il faut mu ànd ak modernisation ñu andi ay jumtukaay yoo xam ne ci lu mel ni ay machine ay engrais ay jiw ba nga xam ne nañu améliorer mbay mi nañu mais nous avons ci exploitation modèle agricole parce que nous proposons un modèle économique bâti autour de l'industrie nous avons une filière qui est portée. nous avons l'agriculture, agriculture wax pêche wax élevage wax tourisme wax la gestion nous euh, avons à partir des ressources naturelles ci agriculture bi avons dañu ñi jité réew mi tey boo ci plan Sénégal émergent référence yi ci woné sax day daf lay jiital ndax ñi ngi wax li ñi wax la nouvelle politique agricole du G8 ñu tuddee ko NASAM politique bobu dara tax ko jóg moy nu ñuy def ba tout tugal yi nga xamné ne c'est seeni suuf saturé na wala mu nga commencé une entreprise agro business sen agro business yi am doole yi ñu mën a ci suñu réew yi ñu jox leen suñu suuf loolu nous bi ñun li ñu wax mooy modèle bu bëgg c'est pas l'agro-business na am un peu business waaye avec un capital sénégalais ndax suñu suuf du ñu jël du ay nit yu jógee bitim réew ñu naan la dafa wara def ay hectares waaye bu ko defee ba nopi quatre ou 90% bi da koy génne pour yóbbu ko ñom ñu dundé lañ cay trier nga xamné li c'est même pas propre à la consommation loolu lañuy délo ci suñu nit ñi su dee dañu war def agro business ce sera à la marge ba paré capitaux sénégalais ñoko wara jël réforme agraire bi ñu bëgg a proposer suñu waré jox kayitu suufu mbay duñ ko jël di ko jox ay ay doxadim dañ koy jox waa senegal léegi nag li ñu xamoon ci mbay mooy mbayum Sénégal mbayum famille la soo demee ci àll bi famille bu nekk dafa am ay toolam bu nawet jotee mu dem bayi fa mbayum famille boobu moom ngay fekk fu mel ni Italie moom ngay fekk feneen ak feneen Nous ne nag munuñu nangu ñu rek parce que nous avons bugg léegi dem vers lagro business ak ay ñëw milliards ngeen jox leen suuf si dem di leen liggéeyal ñu leen di fay ñu ñooñu organiser organisation mooy nañu fexe ba ferme de 5 hectares 10 hectares 7 hectares maximum 10 ci biir ferme yooyu لن يفخر بمدرسة فرمي لتح ما واني فيلم بيليك من بماي نكت غوني بماي أم بكالوريا أدونة دمنا باي موي باي بو متى متى متى نغا قوي دفاق لخو بسا درو درو لخو يدي خلق تسو فاري راند ما بي دو بري ينا ليجي لولو باخنا اي جامبار لنجوان لا يفوني مودرنيزم بايمي فخبا نيني ام اي سموار à temps am ay semences certifiées il faut régler les conditions de nga accès à l'eau ku amul ndox le Sénégal continue continuer culture saisonnière hivernage que'' que ñu am ay propositions ñu def nous nous ci Moy revitalisation des vallées fossiles li nga xam une am nañu possibilité ci fleuve Gambie ci fleuve Guinée-Bissau ci fleuve Sénégal du moins ak suñu cours d'eau intérieur. yi avons une bokk organisation yi des di OMDG l'OMVS, jox possibilité Nous avons ni 6 millions de mètres cubes ci at wi ñu mën prélever pour revitaliser les vallées fossiles Ferre ba at bi un nit ñi mais avec une diversification culturelle on a jamono ji euh, guerre, sous saison boobu passé nga mun ont def du maraîchage mun def de la pisciculture introduire un type de culture qui permettre à chaque moment de l'année de nga am loo récolter. Déf aussi de l'aviculture est yeneen

peut-être que bi maire il l'était les maires sont irresponsables ba ku pouvoir foncier ñu dagg suuf ci nous ko Nous tax tay mu du jox agriculteurs yi dañu ne réforme décentralisation bi ñu proposer mécanisme ñu pour renforcer la décentralisation dafa and ak ñooñu am un véritable pouvoir ci gestion ressources naturelles yi les maires laa wax am pouvoir ci gestion foncière bi am pouvoir ci gestion des ressources forestières bu boobaa avec un contrôle à posteriori de l'état mooy lu ñuy def état bi am na sañ-sañu saytu ko ci gannaaw bu boobaa nag dinañ mën a am une véritable politique bu agriculture boo xam ne agriculture familiale lay doon Ni ñi am seen kayit mën a liggéey wasalaam ok euh... artisanat bi tam def nañ ci ay développement am sous-chapitre boo xam ne tourisme artisanat et sport la li a nga diree livre bi gis ngeen ko muy defe naa li ko mën bëriwul wax artisanat nag bijoutier moi, orfèvre moi, mécanicien moi, menuisier moi, peintre mooy euh, coiffeur etc ñooñu ñëpp ci artisanat bi la moo tax ñu ne ñun de dina am lenn lo xamné ci walu commande nationale bi suñu né dañuy commander ay mobilier de bureau dañuy soxla ay mobilier de bureau balaa ñu naan ñoo ngi dem diko importer ay Chine ak feneen ak feneen dinañ jox marché suñu artisanat xam nga benn bés dama wax assemblée nationale bi ñuy doog installer assemblée ñu woo ñu ne dañuy jox carburant ma ñëw ñu talal ma carburant euh, benn kii nu mu tudd carte carte totale. may leen man bugguma carte bi man dama bugg ngeen jox ma carburant wu opérateur sénégalais Elton mi ngi fi Elton mi ngi fi oy de oy Aydon mi ngi fi Star Oil mi ngi fi Touba Oil mi ngi fi keneen ak keneen soit mes France gouvernement français ñemewul ci impôt impôts français yi mu commandez carburant pour l'administration, vous mu commandez carburant Shell ñemewu ko ñemewul suy jënd auto, mu bàyyi fi Renault bàyyi Citroën Citroën PS euh, Peugeot Citroën pour les magasins de dem Ford ñu ne ma waaw mais ñun on rien parce que si qui sont distributeurs nos nationaux nous distribution pour le moment nous sommes ci distribution sommes obligés de ci dépôt pour am carburant marge mais si nous avons ngi leen propre euh, dépôt de stockage Non, non, non, être des indépendants Nous ñu gannaaw suba suñu demee ba ne tey ñun dañuy samp suñu une compagnie nationale pétrolière très forte ñu ne état bi mooy jël 55 pour cent suñu nee secteur privé national andi leen dara ki dina fekk ñooñu am na ñu ñu war a mun a andi c'est comme ça qu'on soutient son secteur artisanat bi mi ngi dañ la naan mooy ne finition bi rafetul ne lii ne la mais su doon dañ leen di jàppale leen jox marché ñoom it ñu góorgóorlu parce que léeg-léeg nit soo ko bëggee jàppale da koy wax dëgg jël sa xaalis jox ko ab menuisier wala jox ko ak mécanicien ne ko sama oto gi nii wala sama euh, lal laa bëgg ak chambre à coucher ñu ne la samedi samedi 25 octobre dañ laa war a may jabar nga dem joxe sa xaalis di xaar chambre à coucher 25 octobre ngay yor waa ji ci dëkk bi loolu tam du yoon ñoom it nañu góorgóorlu ci sérieux

mooy suñu visitiers dañuy dem ba ay Angola ak fu ne di uti or léeg ñu leen di jàpp naan or bi set na ak setul est-ce xam ngeen ni or ñu ngi koy génne fii Sabodala diko ko yóbbu ñom ñoom mënuñu ci am or ñu koy def fii Sénégal donc il faut mu am une part de la production nationale bo xamné dañ koy réserver exclusivement ci suñu artisans yi ñoom ñu mëna am accès à ça mëna liggéey améliorer wu ba jëmee ñu mun a am fierté ne dem naa bërëb sangam ci àdduna fekk naa fa ay mobilier ñu ne ab sénégalais ko defal. waaw kon euh, vingt heures presque jot na. Euh, c'est symbolique damay faral di wax ni université Sénégal yi li ñu fay gis mooy anthropophagie personnelle maanaam dañuy lekkanti ci nit maanaam nit ñi au lieu ñuy lekkante ci xam-xam ñu dañuy lekkante ci fii waroo fee taxaw waaw di xeexante ci personne. je pas produit un livre scientifique xam nga sama vision lay joxe ça ne peut pas être un livre scientifique soo liree audace d'espérer de Barack Obama doo ko fekk. ay bas de page wala ay trucs soo liree révolution de Macron donc on etc. parce qu'il donne sa vision nous nous téere donc je le. bind du bind premier livre vous le premier livre bi mon le premier livre scientifique Mon tax le presque plus de 350 notes de bas de page mais puis je ne fais que donner ma vision qui est forcément subjective et par essence ne peut pas être scientifique Moi, observation un euh, professeur tam mais en tant qu'universitaire c'est tout à fait normal et je vous comprends mais c'est pas du livre scientifique là doon produit, justement euh, réconciliation je crois que Amna Amalgam. amalgame Amna Yatus, euh, ben benn waroo bu am diggante suñu identité étatique république bi ak suñu identité sociale waxuma suñu biir ñun suñu au niveau social dañu am problème non d'ailleurs si bi gis à plusieurs reprises dama né malgré que suñu institution baaxul malgré que suñu homme d'affaires mel nañ ni ñu mel

kilifa diine kilifa aada yi ñoo fay ne ñu am voix consultative ñu am ci réew mi su dee dañu ne pétrole am na wala gaz ñu mën a bind li ñuy bind su dee dañ ko def ci arab ñu def ko ne leen xool leen après ngeen wax ñu lan ngeen ci xalaat moo gën xaar ba mbir mi nar a tas ngay gaaw a ngay daw naa leen wax leen kon au niveau social diggante séeréer joola olof et cetera bu diggante diine yi diggante tarixa yi ñun amuñu problème du fond laa waxee mais dama ne suñu état est-ce que reflète reflété na ñun suñu identité sociale donc mais foofu la est-ce que état bi ñu jox bi ñu ci colonisation te mosuñoo toog waxtaan ba ne lii la ñu dëppoo ci suñu hymne national peese tous vokora frapper les balafons est-ce que dañ ñu ci consulter woon est-ce que biñu jël suñu couleur suñu symbole jël suñu gaynde le symbole du lion passant qui qui est le sceau du président le symbole du baobab qui est le sceau de l'administration est-ce que yooyu yëpp ci am lu waxtaan ba dëppoo ci ba nga xamné tay tey nit ñi dañuy sentir lu leen concerné ba suñu nee hymne national bi ni muy def hymne national Amérique ni muy def américain bi la Marseillaise ni muy def français bi ñu tam mënul ñu koo def fofu la doon waxé mais waxuma digënté ñun ak ñun wax dëgg yalla ñoo ngi sant yalla euh, la ma wax nak ci.

Nous sommes indépendants ou nous ne le sommes pas. C'est des questions de souveraineté. Mais, d'accord, là, tu dis que moi, je me cours dit monde, je dis que peut-être, nous devons dire que nous sommes des confards du monde. Nous devons dire que nous sommes des confards du monde. Accès ni péché, accès ni moyen. Mais nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique.

déjà c'est un exercice assez difficile Une journaliste de tàmm am nit en face du relance aujourd'hui Ousmane est très avantagé mu ngi jàkkaarloog passé. Nous lu ko neex mu wax ah donc nous, ñu peut-être pour nous décrocher ci direct mais nga may ñu nous dellu peut-être ci deuxième tour euh, deuxième et dernier tour de questions boo xam ne dinañu mën aborder tamit yeneen question yoo xam c'est important parce que li ñu def sànq entrée en matière kese là waaw d'accord léegi Ousmane xëy na dina ñëw 7TV nga dalal ko Pape Alé Niang. Euh, Pape Cheikh Sylla je pense que lii may mën a wax rek laay wax di wax ne fi mu nekk nii euh, liggéey bi ñu doon def nii exercice bu bees c'est vrai.

di wax ne suba mën nga xëy ñu ne lu tax journaliste yii rek ñu tànn leen ñuy waxaat waxtaan ak Ousmane Sonko damay wax fii en direct la télévision que candidat yëpp képp ku ñeme bëgg nous sommes à leur disposition les Sénégalais sont à leur disposition merci. fonds social te ñaari parti ñaari laa gis nga nangu ko ci euh, liggéeyu Macky Sall bëgg ko améliorer muy PUDC bi que euh, si ma mémoire est bonne euh, euh, nous allons améliorer bourse sociale Je veux ci tous les intervenants Je veux dire que quand nous nii kenn nous ne nous pas na moom rek def deux heures de temps ou trois heures de temps le livre Nous dañoo bëggoon des intervenants avec un profilage diversifié mais je me rappelle je crois que bi may wax ne Cheikh sa préoccupation c'était le temps de parole Nous avons na marqué notre disponibilité toute la presse sénégalaise nous sommes disponibles à répondre sur vos plateaux à débattre de ce que nous avons écrit Il y a questions question qui fi que poser temps bi gàtt na nous cee tontu waaye am nañu tontu yi te mënoon nañ ci tontu mais temps bi na parce que gars yi arrêté direct bi di bu a mais bu ko continuer euh, des interviews individuelles comme collectives dinañ ko def euh, di wax rek ne fu ñuy tëjee bi dafa amoon solo ci ñun li tax boobu ba léegi ci déclaration de candidature dañoo fas woon dañoo fas yoon a yéene ni bu ñuy dem ba war a taxaw ak askan wi di wax waxu candidature dañuy teg dara seen loxo li ñu def ci ñeenti at yi Sénégal yëpp gis na ko suñu taxawaay ci géew politique Sénégal yëpp gis na ko suñu taxawaay assemblée nationale Sénégal yëpp gis nañ ko lañuy doxal ba tax fu dox mi lieu de culte yi cérémonie familiale dans les réseaux sociaux ñi nekk Sénégal ak ñi nekk bitim nous ñëpp diñu nous Nous laaj wala Nous nous ci candidature ñi ne woon di liggéey liggéey ñu ngi dajale tous les démembrements de Pastef tous les demandes de Pastef et de la diaspora yàgg formuler ma ni solennellement Sonko peuple sénégalais que je serai officiellement je suis officiellement candidat à l'élection présidentielle 2019. s'il vous plaît bi dafa gàtt loolu nag lu ñuy def la ànd teeg suñuy partenaire ndax yéen yëpp xam ngeen ne dañoo am ay partenaire politique ñoom RND bu docteur Diallo Diop ngi ni toog yoonu askan wi Badiaye Madiaye Mbodj a ngi nii toog taxaw temb a ngi fii ñooñu ñooy suñu partenaire yi gën a jege ñoo ngi wax MRDC ngi nii toog docteur sàll Euh, je sa bu euh, sama euh, mon grand frère et ami Bruno Derneville mi ngi et ak ñeneen politique, peut-être acteurs politiques parce que li ñu Bruno Derneville, c'est un vaste rassemblement parce koy def vrai rek du nous, sénégalais yépp parti politique yi rupture mouvement citoyen les artistes les mouvements citoyens parce que c'est l'avenir du Sénégal qui est en jeu 2019 est un tournant trop important pour nous. on a une chance historique de reprendre notre destin en main mais ça ne dépend que de nous et des Sénégalais

ñoo ngi leen di ñaan ngeen yokk taxawaay bi te li ñu war a mën a permettre ñu contourner le système ñu contourner waa Bennoo Bokk Yaakaar nga xam ne amuñu bureau yaakaar nañu lu dul xaalis bu dul jeex boo xam ne ñun ñëpp xam nañ ni xaalis bu ñu jëlee ci trésor public la xaalis bu ñu jëlee ci surfacturation marché public yi la xaalis bu ñu jëlee ci njuuj njaaj la dem ci population yi nga xam ne ñoom ñoo leen lottal ba ñu lott ñu leen di jox di leen essayer nax

dootul am benn parce que man sama gëm te gëm ko ci élection Macky Sall premier tour deuxième tour ci wax ni mettre en garde Macky et son gouvernement foqati élection du fi et éliminer na ay adversaires ci instrumentaliser justice mu parrainage

On doit cela à nos enfants et à nos petits-enfants. Nous seetaan di continuer na ngeen dem duggu wax ak nit ñi Nous ngi ñaan ñi nga xam tay ñoo yor de mi Abdou Diouf ko ko nangul Macky Sall ndax ci yu xam nañ ni élection bi bëgg victoire à 65% à 54% d'aller déclarer couvre-feu ku génn ñu tiire la bu ko armée nangu bu ko gendarmerie nangu parce que ñoom ci peuple bi la ñu bokk ñu ko woon Diouf n'angu. ñu ko woon Ablaye ko ko yi moment historique la ñu toll musuñoo jege nii nous a débarrassé wu ci système bi nga xam ne moo ñu lottal nañu takk suñu ndigg nañu farlu